des activités gouvernementales et la société de façon générale mmh. euh, ma jël ci benn déjà muy voyage wu président Bassirou Diomaye Faye bi en Côte d'Ivoire mmh. li ma jëkk noté foofu mooy les nouvelles autorités en Mauritanie mmh. li mu jëkk noté mooy président bi dafa mel ni dafa bëgg privilégier son entourage immédiat donc disons l'Afrique de façon de façon générale et particulièrement de l'Afrique occidentale française réew yi nga xamante ni ñoo ñu wër ñoom la ñu nekkal au sein de l'UEMOA au sein de l'Afrique occidentale française mm-hmm. alors euh, dafa mel ni ciment bi ñu bëgg a tabaxal union union africaine te mel ci foofu la sóobu mm-hmm. parce que boo seetloo yu ñu def prestation de serment pays yooyu rek ñoo ñëw daanaka waaw y a pas un état mm-hmm. et ça c'est extrêmement important donc tey ñu ni dafay dem gànnaar ndax am nañu liggéey bu am solo bu ñu war dafa gànnaar benn wax ngeen ko ci mbirum pétrole bi ci mbirum gaz bi te na ne gaz bi nekk foofu moo ëpp doole moo gën a baax moo gën a bari ferñeent loolu am am solo la lu ñu war préserver la te itam gis nga géej gi tamit dañ ko fàtte mais napp gi dafa am solo sa mbokk ndar-ndar yi rawatina waa Guet Ndar yi yéen gis ngeen toujours dañu am problème ak ñoom bu ñu dem ci waaxu ganaar yi yooyu question la boo xamante ni mhm. sur l'économie maritime des na ko waxtaane parce que quand même euh, li nga xamante ni géej gi daf ko ñu koy génneel ci alal. ci koom-koom ci lu jën dafa am solo te bateau yi nga xam dañuy wër waaxu gànnaar bu Sénégal yàq nañu yàq nañu géej gi. yooyu yëpp dafa laaj ñu waxtaanee ko. Mhm. mais même au nu plus loin même les barrages. Mhm. même les barrages les barrages de Manantali et autres là. yooyu yëpp lu ñu war a mën parce que Afrique dama jàpp ni Sénégal Mali Guinée Mauritanie nous ne sommes que des régions. du pour Afrique. il faut qu'on cimente les États-Unis d'Afrique. il faut que Afrique nekk benn booloo nekk benn am doole am ressources yu am am solo ñu mën a suqaliku ñu mën a génn mais tant que li ñu lekk dañ koy jéggaani ci. pétrole bi dañ fii la ëppee waaye fële lañ ko liggéey ñu rafetlu ko ñëw ñu ko jaay. Mm-hmm. télévision yeeg ordinateur yi nga yor lépp fii la euh, mbir mi jógee mais fële lañ ko defaree jaayat ñu ko mm-hmm. euh, yu bëri bëri bëri Afrique moo ko moom fii lay soxee ko minerais yi mais ñële ñu am tabax bi ñële ñu am usine yi ñële ñu am expérience bi technologie bi ñoo ko liggéey jaay mhm. tant que africains yi suude wuñu indi seen borom yi xam-xam yi seen doom yi nekk benn defar loolu mais duñu avancé man li ma gëm loolu la mhm. muy diwlin ji muy ceeb bi muy lépp lu ñuy lekk rek mhm. war ñu fexe ba am créé ko fii ñu jëm vers un marché commun africain lu dafa am solo trop pourvoyeur de fruits la duñ sol fruit keneen nañ jënd suivi Sénégal gerte la am diwlin ji nañ ko ja ceeb bi nañ ko régler extra extra mm-hmm. yooyu jàpp naa ni yu am am solo la ci bu ñu fëggee vraiment suñu réew yi développé et puis ñu dem nag ñu booloo parce que l'avenir est à l'unité des nations l'unité des pays particulièrement ici en Afrique mm-hmm. parce que l'Afrique est le continent le plus pauvre le, le continent a été appauvri par la colonisation. Mmh. l'Afrique n'est pas pauvre mais appauvri par la colonisation. ñun ñëpp benn réew la ñu woon. Mm-hmm. mais dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu partition. Mm-hmm. tas ñu kolon yi jël ñii ñii jël fii ñii jël fi France yi jël fii euh, ñeneen jël fii et cetera et cetera bon bref. Mm-hmm. c'est pour dire simplement que li ma gis daal mooy. politique bu ñu mën a lal te indi wuñu loolu mel na ni ñoo ngi régresse ñoo ngi dellu ginnaaw Ah, loolu unité africaine mu nekk lu véritablement important ah oui lu am am solo la mu bañ a nekk lu réel non non non bañ te loolu tam di ci war a xeeb parce que tubaab yi duñu nangu loolu am déedéet parce que daf leen di ñàkkloo seen marché yu bëri bëri. Mhm. parce que seen njaay fii lañ koy jëndee. Mhm. oto fii lañ koy jëndee avion fii lañ koy jëndee donc bu ñu demee ba ñun technologie boobu ñu mën na ko suñu bopp. ñu amal ko suñu bopp doo ci leen soxlaat te ñoom ñoo ñu soxla. te loolu ñoom ils ne sont pas prêts à accepter ah, cela donc il faudrait des des véritables cadres. Mhm. des véritables administrations. futé yu am courage ñu mën a taxaw mu jar leen ko. loolu je pense que les nouvelles autorités là mel na ne daal xalaat naa ni gis nañu lu demee noonu. vraiment loolu la ñu war a la ñu war a def moo tax suñu kilifa gi président Abdoulaye Wade bindoon ci téerim bu màgg boobu le destin pour l'Afrique